Matar Diop responsable politique alliance pour la république si Touba tàmbale si chargé de mission tey jii ba si haut conseil des collectivité territoriales ñëw nag def nataal si moom laaj ko parcours am si wàllu politique ba bi mu accès fii. mais man samay début yàq naa c'est pas c'est pas compliqué parce que ku ma xam-xam ne. Euh, sama début ci politique euh, man lépp ci ginnaaw Moustapha Cissé laa ko def parce que nag yàlla dafa dogal ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla suñu borom mhm. euh, sama digganteeg moom euh, yaakaar naa ne lépp loo xam ne moo ngi ci politique ci man moom moo ko def ci man. waaw Matar digganteem ak président Moustapha Cissé Lo mel na ni ñagas na te nag mi ngi mësoon nekk si keppaaram moo ko sax jàngal politique bu nu sukkandikoo si moom mu dëggal ko. nag comme li nga wax. politique moo am peut-être nu mu demee man Moustapha Cissé Lo eh, il est mon père et il toujours un père pour moi parce que man noonu laa ko jàppee noonu laa gisee peut-être nag réeroo am na sama diggante ak moom loolu moom duma ko nëbbu ay réeroo am na mais man dama ko considéré comme waajur parce que sama taw bi ma jur tey jii am na sept ans moo ngi sama biir kër moom laa ko tuddee. waaw Matar lan la jàpp nii moo ko war a booleeg ak papaam bii muy wax ni moo ko jàngal politique. mais peut-être nag ay mbir am na nit ñi duñ bàyyi weer ci benn fan am na lu ñu ko wax ci man loo xam ne peut-être euh, jàpp na ko man tamit comme noonu euh, déb boobu léegi tooguñu waxtaan mais li ma gëm mooy euh, c'est pas méchant parce que kenn déggul tamit lu bon lu jóge ci man dem ci moom kenn déggul tamit wax ju bon pour tamit jóge ci moom ñëw ci moom. ginnaaw étape boobu ndax Matar Diop dafa jël dessin am en main ngir jàmmarloo ak responsable yi mu bokk langue bi si biir APR si Touba. mais nañ xam ne man li ma li ma boole mag Sall tey mm. buñ yaakaar ne mbir mi dafa ñor rek tey jii ñu ne noo Matar. nañ xool bi may kar fii di ma dóor guy mbind booba ñi ñëw fi kenn gisul kenn ba mel ni moo fi nekkoon ak Sadaga gisuñu kenn waa xanaa nag mbir mi du nag ba sotti nag ñu ne Matar demal nga toog fële ci ginnaaw nag euh, nan la tudd nga demal ci ginnaaw léegi nan tudd saxaar si nga xam ne moom la ñuy taalee kii bi saxaar bi de la rek du ko nangu. kon mën nañu jàpp ni Matar dafa natt boppam. si biir alliance pour la république bu Touba. fii je défie département. ku mën a doon laal la wax kenn ñoom ñëpp je défie quiconque ñoom ñëpp jamono ñu toll nii maa leen mën loolu la yàlla dogal. et pourtant am na fi nag ay nombal tànk ay DG wala ministre conseil ba si ay DAGE ak ñeneen tamit ñoo xamante ni Matar yéen a bokk làng gi si Touba. da nga gis nii danga nga leen raw si politique wala. dama ne ñoom ñëpp samay camarades lañ dama ne fi ma jógee fi ma jógee ak fi ma agsi fii laa wax man du ma ministre du ma DG. Babacar ma benn moyen ñaata au conseil ñaata député ñoo fi nekk dama ne man maay jël sama alal ak li ma liggéey di ko def dama ne par rapport ak DG ki ministre laa wax je kii quiconque département bi jamono ñu toll nii xaw ma suba de sama loxo la nekk. bu nu ñëw itam si beneen fànn li nu fi nemmeeku mooy Matar mi ngi si diggante ndaw yi soit muy def ay ndimbal soit également mu am si ay pion ndax dangay ngay pour am base rawat na nag sa diggante ak cogère. man joué wu ma parce que problème mooy man basé wu ma ñoom pour sama base amul benn cogère boo xam ne te basé wu naa ci yow. bu may mobilisé du ma woo COJER bu may def sama action du ma woo COJER man bu may def samay sama sama politique samay militant ak ñi nga xam ne dañoo ànd ak man tax ñooñu laay dem mm. mais ñoom seen jëm bopp mënuñoo nekk ay structure nekk ci bi kenn ku ne di réclamer wu parti bi boo ma soxlaa damay damay ñëw mais wax naa leen ko nee ko lii boo leen ko defee doo am dara parce que ñun ñoo ci jiitu woon. ñun ñoo jiitu woon ñun ak ñoom Khadim Sylla ñoom Bassirou Diagne ñun ñëpp ñoo jiitu woon mais mosu ñoo booloo mais biñ biñ mosul boole dañ naan waa Touba mosu ñoo juboo loolu nag du question du question régime bi rek depuis PDS ñoom Mor ak ñoom Bassirou Gueye foo waxee ñu ne tubaa Touba jubawul mais nag man wax naa leen ko nee leen feek ak leen benn. bu ñu dellu si waatee su lu yaatu gis nañu ni defet yi na seen coalition bi élection bu mu dem ñàkk ko da ngeen nekk si leneen loo xamante ni dëgërul te nag du ngeen mës a muyee seen mayo. da dama ne amul kenn ku muyiwul la mayo Touba dañoo dem ba ci biir man maa propose ne leen benn comité électoral mënu fay nekk ñu dag ko sept communes sept sept euh, sept zones. mais Babacar dama ne loo bañ ban ñi fi nekkoon ci zone yi kenn ku ne sa zone concurrence la woon yaa ngi xool li Matar Diop def yaa ngi xool li Baye Alla def yaa ngi xool li Cheikh Abdou def yaa ngi xool li keneen def pour ma koy def zone yi dafa metti woon parce que kenn ku li nga amoon da nga ne woon man sama zone na gagné mais déggoo li ma la ñun liñ mën yëpp. ba tey bu ne Matar Diop xel yëpp day dem si commune bu Touba. ndax conseil la fa doon it président commission jeunesse waaye nag lan fa nemmeeku mooy dossier yi. dem nañu ba dàkkantal la absentéisme. damay absenté lu bari mais heure bu ma absenté rek am naa excuse parce que nag comme li nga wax man man je préfère parce que ci politique mais je ne vis de la politique man li ma gëm mooy sama activité yu bari parce que bi ma fiy jógee nag gëm naa ne aw ma benn liggéey ci politique laa amee lañ lañ ma xamee ak yooyu mais dama dundeewul rek politique am na jamono yoo xam nag damay fekk ma liggéey wala mu fekk ma mooy voyager nekk ci sama yëfi bopp man li ma mën mooy fu ma dëkk soxlaata ma nekk fi ma ñëw présenté wu ñëw taxaw andi li ma li ma war def ma def ko. Matar Diop dañuy tëjee ak Covid 19 bi si Touba. ñu ne meeku nag am na manque d' infrastructure sanitaire. ana hôpital bi fi njiit réew mi waxoon te nag mu waxoon ne sax mille 2018 dina fekk mu pare. ba léegi France daal di xëneen fu mu sooxee. parce que bul fàtt nag dëkk bi moom ñun bu ñu sañoon lépp Touba la jëm bu ñu sañoon lépp Touba la jëm mais nag ñëpp dañ cee bokk. hôpital bee bi nga xam ne moom mooy mooy bu nekk yoonu Missirah boobu ñoo wax ñi ko gañe fuñ fuñ toll. parce que hôpital boo xam ne lu mat wax benn a kan lañ a réceptionné 2000. 2018 2018 lañ ko réceptionné ba léegi gëm naa ne fii ba 2024 loolu pour quelle raison boobu loolu dañu bëgg ñu leeral ñu ci parce que mënuñoo ñëw ñu def appel d'offre ñu génnee xaalis ñu ne hôpital bi lii am na loolu foog mu loolu tamit man Matar Diop lëndëm na sama bopp loolu moom je suis entièrement d' accord ci yow lu mel ne lu bu fekkee nag programme bi noonu lay mel je ne suis pas du tout d' accord man sama jëm bopp ministre de la santé bi mu ñëwee au conseil wax naa ko ma ne ko nag ñun mënuñoo nangu ay pose premier pierre rek biir Touba mhm. loolu moom mënuñ koo nangu certes nag le président de la République donne des instructions lim mën yëpp da koy def mais suivi bi man fan lay tegee laa xamul mënuñoo ñëw ñu nañu hôpital bi ñi ko gagné lancé nañ appel bi bi génn hôpital de boobu léegi di traîner lan moo nekk ci ginnaaw. te ñi nañ ñi séddoo nañ xaalis bi ñii jël nañ kii am nañ ci pourcentage ñii kenn loolu lépp ñu ngi ko fi dégg. Matar Diop conseil des collectivités territoriales responsable APR la si Touba moo nekkoon gan gi tey si nataal bi si Xibaar 24 TV.